mooy contrat bu nga xam ne moom lañ signé pour mun a jàllale euh, énergie yu nga xam ne dinañ ko échanger diggante ñeenti pays yi nga xam ne ñoo ñoo nekk OMVG muy Sénégal muy Gambie muy Guinée-Bissau muy Guinée lii nag ay négociation yu yàgg yu ñu defoon la ak ñoom ba yàlla dimbale nañu tey pare nañ négociation yooyu war a ñëw signer contrat bi lii nag buñ ko gisee dafa nekk loo xam ne dina am njëriñ pour suñu ñeenti dëkk yi yëpp parce que dinañu permettre ñu am lu ñuy wax marché de l'électricité marché de l'électricité mooy ku am looy jaay nga dugal ko ci ku bëgg a jënd aussi nga xool ku am lu muy jaay mu jaay la loolu dina ñu permettre ñu mun a dimbalante suñu biir doxal solidarité bi nga xam ne bu ñu gisee pays boo xam ne dafa am problème mu courant beneen pays mun ko jaay courant te tarif yi ñuy jaaralee si kii bi yëpp xam nañ ko donc lii tey dafa mel ni autoroute à péage yi rek autoroute électricité yi pare na léegi nag wax nañ tarif yi nu muy demee contrat boobu la ñuy signé tey nga xam ne képp ku bugg a jënd courant xam nga boo jaaree si autoroute électricité yi ñaata ngay fay. day tax suñu société d'électricité yi. subvention yi nga xam ne état da ko doon def si ñoom nga xam ne dafay wàññeeku bu baax a baax parce que amoon nañ ay source énergie mais ñun léegi li ñuy am mooy am na dinañ am ay barrage am na ñaari barrage yu nekk Guinée mooy Souapiti ak Caleta nga xam ne également dina sociétés yi dinañ fa mën a jëlee courant également ñu ngi di liggéey sàmm ngalu nga xam ne commencé nañ ko mën na léegi at donc loolu yëpp dina tax courant boobu buñ ko jëlee mu jaar si li nga xam ne mooy ligne OMVG ligne haute tension la nga xam ne mille six cent presque mille sept cent kilomètres junni ak juróomi ñaari téeméer nga xam ne moo la lënkale ñeenti réew yi donc ci gàttal loolu la woon donc ñun yàgg nañ ko xaar nga xam ne lii buñ ko signé tey ah société bu nekk dina am également lu muy fay parce que loolu moo tax konk que xaalis bi nga xam ne dañ ko leboon si bailleurs yi nga xam ne également réew yi dinañ ko mën a delloo si bailleurs yi